tey ñu ngi fas yéene julli eh, takkusaan takkusaan nag comme niñ ko jàngale woon ci tisbaar gi rek ñoo tolloo niñ leen di jullee ñeenti rakk la tisbaar ñeenti rakk la woon takkusaan mi ñeenti rakk la ñaar rakk yu njëkk yi eh, bu ci nekk da ngay jàng faatiha jàng saar ci ñaar rakk yu njëkk yi nga toog taaya jógaat ñaar rakk yu mujj yi ci takkusaan bu ci nekk nga jàngat ko faatiha kon ñu xam ne ñeenti rakk ay tisbaar kenn du ko wax ci kaw ci suuf lañ koy wax balaa ngaa kàbbaar nag da ngay liqam liqam mooy nga wax allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an laa ilaha illa allahu ashhadu anna muhammadan rasulullahi xaya ala alsalaati xaya ala alfalaaxi qad allah boo paree nag nga yëkkati sa ñaari loxo ba mu tolloog sa ñaari nga wax allahu akbar fa ngay waxee allahu akbar nag foofu ngay dugale yéene ji ci diggante allahu bi ba ci akbar bi ndax yéene ji boo ko defee avant ngay wax allahu akbar yàqu na boo ko defee après allahu akbar ci tamit baaxul kon da ngay yëkkati sa loxo ba mu tolloo sa ñaari eh, nopp ndax yëkkati googu sax nekkul farata mais allahu akbar bi ngay wax ci boppam moom mooy farata ci julli léegi boo waxe allahu akbar ci diggante allah bi ba ci akbar ji fa ngay dugalee yéene lan ngay yéene fas naa yéene julli jullik takkusaan mais doone fas naa yéene julli rek kenn du xam ndax naafila la wala farata da ngay ràññeel julli bañ xam ban julli la waaw ah, boo wàccee sa loxo nag nga tari booy tari nag comme waxoon nañ ni takkusaan kenn du ko wax ci kaw mais njàngale moom moo tax ñu wax ci kaw léegi nga seet saar yi nga man nga tari ko ndax am na sax saar yu ñu bëgg nga tari ko ci tisbaar ak lu mel ni ki suba moom dañoo bëgg nga tari saar yu mais comme alquran dafa wax ne faqaru ma tayassara min alquran na nga li li jàppandi ci li nga mën ci alquran kon par exemple booy tari nga jàng bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahimi maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 saar boo mën ci alquran rek wala laaye boo mën am na laaye moo gën a gàtt moo gën a gàtt saar laaye mooy comme par exemple nga wax wadduxee laaye la wala wadduxee wa layli isa sajjee loolu aaye la boo ko waxee sëgg baxan loo mën daal ci alquran nga tari ko bu fekkee mënoo saar yu guddi yi boo paree ci saar boobu nga sëgg allahu akbar waaw noonu leen bëggee nga sëggee ko nga xamante benn du jiitu sa morom sëgg bi du jiitu allahu akbar bi du jiitu benn du ñàkk pare sa boo waxee boo sëggee nag bëgg nañ fa nga sàbbal fa subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi ba mi ñetti yoon ndax bëgguñ nga gaaw julli boo jullee julli gu gaaw baaxul ndax sëgg ngay sëgg rek taxaw fa wax sàbbal ñetti yoon taxaw googu nga fay taxaw faratal la ndax boo sëggee si gi rek baaxul ginnaaw boo sàbbalee ñetti sàbbal nag léegi ci ngay siggi booy siggi waat tamit comme la ma waxoon ci allahu akbar bi mook sëgg bi ñooy ànd léegi da ngay wax sami allahu liman hamida tegaat ci rabbana walakal hamdu ndax bëgg nañ bu fekkee yow kese yaay julli boo waxee sami allahu liman hamida ba pare nga waxaat rabbana walakal hamdu bu fekkee mbooloo la imam bi boo waxee sami allahu liman hamida ñi si ginnaaw ñoom ñooy wax rabbana walakal hamdu comme yow kenn la nag da ngay wax sami allahu liman hamida ba pare wax rabbana walakal hamdu ci mboolem rakk yëpp boo su boo jàppee sa wom ba siggi rek boo waxee sami allahu liman xamida day wax rabbana wala karhamdu nga doog a yegg waat suuf boo yegg waat suuf tamit al ah, kabaar bi mook sëgg bi mook eh, dem ci suuf bi ñooy ànd nga wàcc suuf dem sujjóoti wax allahu akbar toujours say loxo bëgg nañ nga teg ko ba mu tolloog say nopp wala mu jege say nopp ba mu tolloog say nopp wala mu jege say nopp moom tamit nga waxaat comme na nga waxoon ci sujjóot ba subhaana rabbiyal aala subhaana rabbiyal axla subhaana rabbiyal axla nga siggi ànd ak siggi bi wax allahu akbar toog jël say loxo teg ko si sa ñaari pooj diggante boobu tamit balaa nga sujjóoti waat bëgg nañ fa nga jàng fa ak ñaan wala boo mënoon ñaan bi nga toog fa ab diir doog a dem sujjóot ndax toogaay boobu tamit farata la ñaan nga bëgg nañ nga ne allahumma xfir li wastur wax fa anni wa aafini benn yoon nga doog a dem sujjooti boo waat tamit toujours allahu akbar day ànd ak dem bi nga së nga dem waat ñaareel bi nga ne allahu akbar boo sëggee foofu tamit bëgg nañ nga sàbbaalaat fa yeneen ñetti sàbbal subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la ba pare nga doog a siggiwaat delluwaat ci kaw doo toog nag booy siggi dangay ngay jóg ensene siggi allahu akbar moom tamit sikki boobu mook mook allahu akbar ji ñooy ànd ba ba ngay yegg ci kaw nga duggaat tariwaat fatiha ak saar nga jàngat bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahimi maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين wal asri inna al insaana la fi qusr illa alladina aamanu wa amilu salihat wa tawaasaw bil xaqi wa tawaasaw bis sabri ku man boobu nga tari ko boo ko mënulee nga tariwaat nga seet bi nga mën ci rek ci alxuraan comme nañ ko waxee woon nga tari ko boo paree moom tamit nga su nga rukkoo nga demaat rukkoo yi comme nañ ko defee woon rukkoo bi ànd ak allahu akbar bi nga sëgg ànd ak bi wax allahu akbar moom tamit foofu ci ñaareelu rukkoo boobu da ngay fay sàbbalaat na nga sàbbalee woon ci rukon bële sàbbal yi mooy subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi nga sëggi waat comme nañ ko defe woon wax sami allahu liman hamida tegaat ci rabbana walakal hamdu doogo yegg suuf sujooti boo tamit nga àndataak allahu akbar bi wax allahu akbar moom tamit nga waxaat comme na nga waxoon ci sujoot ba subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la nga siggi ànd ak siggi bi wax allahu akbar jàngat allahuma axfir lii wasturni wajaburni warsuqni waxfaani wa aafini wala nga seet ñaan goo mën rek nga dugal ko fa boo ko mënulee nga toog fa ab diir loo tolloog ñaan gi nga doog a sujjóoti waat sujjóotu ñaareel ànd ak sujjóot bi allahu akbar boo paree ci loolu dafaat ñetti sàbbal subhaana rabbiyal aala subhaana rabbiyal aala boo paree nag comme yaa ngi ci ñaareelu làkk bi da ngay sëggi ànd ak bi toog wax allahu akbar ko fas yéene nag dugg ci taaya bi booy taay nag sa loxo càmmoñ da ngay tàllal baaram yëpp loxo ndeyjoor bi nga bank ñetti baaram yi tàllal ñaari baaram yi waaw ñaari baaraam moom nga tàllal bank ñett yi sa loxo ndeyjoor moom nga tàllal juróomi baaraam yëpp nga taaya taaya bi nag bëgg nañ si nga wax a lillahi azakiyaatu lillahi atayibaatu salawaatu lillahi assalaamu aleyka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalaamu aleyna wa ala ibadillahi saalihina ashhadu an la ilaha illa allah waxdu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu taaya bu njëkk bi foofu lañ bëgg mu mu yem boo paree nga jóg booy jóg tamit nag bëgg neen ci ñaareelu rakk bi booy jóg bul jógaale wax allahu akbar da ngay jóg ba taxaw ba jub xoj nga doog a wax ci ngir imaam noonu lañ ko bëggee da ngay jóg ba taxaw ba jub xoj ba say cër yëpp dalaat nga wax allahu akbar léegi nag commencé dugg tari moom foofu ci ci ñetteelu rakk bi faatiha rek nga fay jàng doo fa jàng saar faatiha rek ngay jàng jàng bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahimi maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin nga wax amin amin bi tamit ci ngir imam malik dañoo bëgg nga ko nga wax ko ci suuf bañ koo wax ci kaw ci mazhabu imam malik bëgguñu amin bi nga koy wax ci kaw boo paree nag tari fatiha boo wax wala daalin moom dafa teg saar comme troisième rakk la ci tisbaar da ngay sëgg ànd ak sëgg bi wax allahu akbar foofu tamit comme nañ ko defee woon rek da nga fay sàbbal ñetti sàbbal subhaana rabbil azim wa bihamdi subhaana rabbil azim wa bihamdi subhaana rabbil azim wa bihamdi siggi ànd ak siggi bi wax sami allahu liman hamida comme yow kese la balaa nga dem nga wax rabbana walakal hamdu dem su jooti ànd wax allahu akbar foofu tamit nga sàbbal fa ñetti sàbbal wax subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal nga siggiwaat ànd ak kabar bi allahu akbar nga tàllaat say ñaari loxo moom waxoon nañ ko allahumma ighfir li wasturni wajburni war warsuqni waxfaani wa aafini nga ànd ak sujjóot bi ak allahu akbar bi allahu akbar sàbbalaat ñetti sàbbal subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal nga siggi dem jëli ñeenteelu ràkk ba booy siggi tamit moom foofu allahu akbar bi mook siggi bi ñooy ànd ba kaw allahu akbar yaa ngi ci ñeenteelu ràkk bi moom tamit foofu fatiha rek nga fay tari booy tari fatiha tamit nga wax bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahimi maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim xayril maxduubi alayhim wala daalliin nga amin ci suuf doogorot dem rukon yi rukon nag nga jàpp say wëm nga sëgg booy sëgg tamit sëgg bi day ànd ak allahu akbar bi nga ne allahu akbar sàbbalaat fa ñetti sàbbal subhaana rabbil azimi wa bihamdihi subhaana rabbil azimi wa bihamdihi subhaana rabbil azimi wa bihamdihi nga siggi booy siggi tamit nga ànd ak siggi bi wax sami allahu liman xamida balaa ngaa dellu su jooti nga wax rabbana walaka alhamdu comme yow kese la boo paree nga rot dem su jooti al ànd ak bi wax allahu akbar jël say loxo teg ko ba mu tolloog say ñaari nopp sabbal fa wax subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la ba muy ñetti yoon nga siggi ànd ak bi wax allahu akbar jël sa loxo teg ko ci sa kaw pooj wax jàng ñaan gi allahumma xfir li wasturni wajburni warsuqni waxfaani wa aafini nga dellu dem sujooti ànd ak sujoot bi wax allahu akbar jàng fa ñetti sàbbali subhaana rabbiyal axla subhaana rabbiyal axla nga siggiwaat toog taaya taay bu mujj bi nga wax allahu akbar booy taaye nag da ngay tàllal sa loxo càmmoñ bi baaraam yëpp ngay tàllal loxo nday ndeyjoor bi nga bank ñetti baaraam yi tàllal ñaari baaraam yi ngay wax baaraamu dee ak baaraamu sànnikaay moom ngay tàllal benn baaraam bi nag moom ñëw bëgg nga koy yëngal ci ngiru imaam Malik nga yëngal baaraam bi wala nga tàllal ba mu jub kocc nga jàng taaye bi attaxiyaatu lillahi azzakiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillahi assalaamu aleyka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihina an la ilaha illa allah waxdu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu comme deuxième taay bi la bëgg nañ nga julli ci daf salaat ibrahima jàng allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali kama barakta ala ibrahima wa ala ibrahima warxam muhammadin wa ala ali muhammadin kama rahimta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamina innaka xamidun majidun moom bëgg nañ ko nga def ko ci darñel taaye bi bu fekkee mën nga ko ginnaaw boo waxee attaxiyaatu ba ci abdu wa nga teg ci salaatu boobu doo ko wax asalaamaaleykum booy wax asalaamaaleykum nag asalaamaaleykum dañoo bëgg kum ji mu nga farale ko sa mbaggum ndeyjoor wax asalaamualeykum mel ni kuy gestu Euh, bu fekkee yow kese la boo sëlmalee benn sëlmal bi boobu mooy farata bi baax na bu fekkee dañ laa jiite tamit man ngaa def salaamaaleykum sa wàllu ndeyjoor jàkkaarloog imaam ci kanam wax asalaamaaleykum sa kanam bu fekkee am na ku nekk sa wàllu ndey sa wàllu càmmoñ nga ne asalaamaaleykum sa mbaggum càmmoñ loolu nag ci njàngale ngiru imaam Malik la kon boo defee nii julli